ba tey ci seen scandale du jour xam nga ni nag on est à des jours jour J moyen Euh, lu mu ndaw ndaw ndaw mooy vingt jours mooy yaakaar naa dix huit ba dix sept jours yi nga xamante ne ñoo des pour ñu dem ci li nga xamante ne moom mooy màggalu Tuuba waaye nag sama mbokk murit ñoom nag ñu ngi joytu te xam ne li nga xam ne moom mooy kafe Tuuba bi dafa daal di cher ñu déglu ci vidéo bi ñëwaat. café gi nan ko wàññi. quatre mille lay jar kilo café quatre mille lay jar. moom lañ gën a bëgg si gan barke madame Touba 4000 lay yegg kilo. café gi ah kafe gi nan ko wañi nan wañi café gi wañi ci deg diw ma gën magal ya ngi yepp dina ni magal wàññi. magal Touba bi nak andu ta café bu cher. ndax ndeysan buy dugg ci Touba ñu lay xelil ngay naan ci auto yek waaye nak bo démé ba ca dal ba nak café Touba bi di jolli ba paré xet ba nak barki rasulillahi seigne Touba yalla nañ ko yalla fayal xet bu neex bo xamantene ne no tu peux pas comprendre kafe gi président jamay wàññil dimbalil waa Touba nga wàññi kafe gi ndax ñun ñu ngi ñu ngi waajal màggal te ñu am na ñoo xam ne kafe Touba bee leen di yóbbu màggal nu ñoo xamante ne bu ñu gëstoo naan bu ñu bu naan bu ñu nalaw maanaam dañuy naan kafe rek man moom xetu kafe Touba bu mu duggee rek mooy man feebar naa ndax damay naan lekk je bois je bois je bois je nag wàññil leen waa tuuba Eu te vi.